jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak euh, ñun mbokk yi nag euh, xam ngeen ne démb yéen a ngi doon dégg ñu ne Malick Gakou bu Grand Parti dafa démissionné coordonnateur bi mu nekkoon ci Yewwi Askan Wi ci Géejawaay loolu nag si la ñu bëgg a ñëw ngir indi si ay leeral ñoo ngi bëgg ñoo ngi si jokko bi ak Mor Diaw mi nga xam ne mooy mandataire Yewwi Askan Wi ci département bu Géejawaay Mor Diaw maa ngi lay nuyu. waaw euh, Mor euh, li nga xam ne mooy démission mali Gakou bi ñu doon wax en tant que coordonnateur Yewwi Askan Wi Guédiawaye loolu yow euh, lan moo ci sa xalaat yow mi nga xam ne yaay mandataire bi ci département boobu. waaw loolu bala may wax dara damay leeral ne loolu amut loolu intoxication la information ba nga xam ne ni ay nit ñi nga xam ne seen xalaat dafa ñaaw jëmale ci yi ñoo ko génne. bëgg yàq ci dynamique bi nga xam ne nii dynamique de victoire la bi nga xam ne Yewwi Guédiawaye mi ngi koy doxee. ñëpp xam nañ ne ñëpp dañoo bootu ci ginnaaw Malick gàkku ñu jiital ay dara en tant que candidat ñëpp également xam nañ ne à Guédiawaye Malick Gakou référence la fa model la fa pour la jeune génération jeune génération boobu nga xam ne ñoom Ahmed ay dara ñëpp ñi nga xam ne nii ñoom maa ngi koo bokk ci yeewi euh, askan wi à Guédiawaye ñoo koy incarné jiital Malick Gakou mu nekk seen kilifa di leen tette di leen woon yoon loolu nag dynamique boobu la ña nga xam ni nii am na ña xam ne sax ci biir yeewu bi la ñu bokk di liggéey pour pouvoir bi ñu ñoo bëgg a yàq dynamique boobu tax ñu joxe information boobu Malick Gakou mi ngi ci suñu ginnaaw mi ngi ànd ak ñun ni ñuy gunge ba ni ñuy wax ak yow nii man mii di wax ak yow di mandataire départemental maay responsable national des jeunes du grand parti donc nga xam ne la grand parti est au cœur de Yewwi à Guédiawaye donc nag loolu information bu yàq la parce que même waa pouvoir bi seen bopp xam nañ ne yeewi askan wi gagné na géejawaay ba pare ñuy wut ay superficie pour mën a teg ay ndigg sërëx ba yeewi tal leneen actuellement li ëpp solo ñi nga wax ne euh, ñoo nekk ci biir yeewi di liggéey ak nguur gi ñooñu yeewi mm-hmm. département géejawaay la wala yeewi national non xam nga xam nga Yewwi département Guédiawaye dafa am ña xam ne nii dañuy euh, teg ay parti politique ya nga xam ne du ñu tekki dara du ñu am sax ñetti nit di dugg ci biir coalition yi pouvoir leen yoon nii pour ñuy saper dynamique gu coalition yi nekk au niveau des euh, de l' opposition loolu nag ñun xam nañ ko bu très moo tax ñu jël suñuy matukaay ñooñu boo seetloo amul benn nombal tàng ba nga xam ne jox nañ leen ko fii au niveau du département de Guédiawaye bëggoon nañ ko xataraay woon nañ ci mais teewul ñun ñi nga xam ne ñoo seq yeewi xam fi ñu jëm xam naka la ñuy doxee fexe nañ ba wet euh, dajale suñuy mbir organiser suñuy mbir ba amul kenn ka xam ne mën na cee dugg di yaay di yàq maintenant nag mën nañoo génne ay information yu sew sewaan pour détourner ñu de l' ñu nag loolu la ñu nanguwul dañ leen nañu nekk suñu dynamique bi ñu nekk te xam nañ ne au soir du 23 janvier dañ leen di gagné moo tax ñuy duggut ci biir di jéem a joxe information Malick Gakou mooy yeewi askan wi. Malick Gakou ñëpp xam nañ ne mais est que taxawaay bi Malick Gakou war a am dëgg-dëgg pour yeewi gagné ci département bi est-ce taxawaay boobu am na ko. Malick Gakou moo damay la ne moo nekk point focal yu yeewi fii ci Guédiawaye Malick Gakou pas plus tard que semaine passée il y a deux semaines autant euh, euh, pour moi il a aidé. tous les candidats investis de Yewwi au niveau du département comme au donc kooku te jàpp naa ne au niveau national ba léegi amagul benn leader sax bu ko def Malick Gakou mooy gunge yi fu ñuy dem logistique bu Malick Gakou la ñuy euh, yóbbu lu ñuy wax mbiri Malick Gakou la ñuy doxee donc ba fii may waxee yow nii Malick Gakou ni mu soutenir Yewwi Guédiawaye gëw ma ne am na beneen leader au niveau national même bu ko soutenir son sa sa commune ou son département donc nag waaye yi Guédiawaye ci boppam en l'occurrence ki nga xam ne tey ji moo ko incarné muy ay dara nekk tête de liste au niveau de la ville de Guédiawaye wax na ko waxati ko tey jii Malick Gakou bu ci jàpputoon bu ñu yegg si fii ñu yegg si tey incha allah day continuer li ba yàlla def dinañ la parce que tamit damay fàttali ne Malick Gakou n'est pas candidat mais candidature Yewwi bi ci loxo Malick Gakou la teg parce que mooy suma kilifa moo ñuy jiite moo ñuy orienté kon kon léegi dem ak lépp lu ñuy def ma léegi euh, euh, du loo xam ne lu ñu leen ñaanal la mais tey bu yeew yi ñàkkoon ci département bi mën nañoo wax ne mali Gakou moom moo moom moo ñàkk non ñun hypothèse boobu teguñu ko parce que li ñu gëm mooy nous sommes nés et nous dans ce département ñun ki ñuy jàkkaar loolu dëkku fi xamu fi amul histoire ak ville bi accident de la woon fii ñu toll nii tey ki ñu samp ñun ak équipe bi ko gunge jàpp nañ ne ñun ñooy doomu géejawaay ya nga xam ne géejawaay fal keneen du ñu bàyyi donc hypothèse ay perte yooyu defuñu ko suñu bopp dans la mesure où tey jii doomu géejawaay yi ànd booloo def liste jiital Ahmed Aïdara ak ñeneen ñi nga xam ne ni ñoo nekk dans les différentes communes ak composantes yi composé Yewwi fii ak Guédiawaye xam nañ ne y a pas photo ñu ne ah, Benno Bokk Yaakaar. jërëjëf Mor ñoo ngi lay sant di la ñu lay sant bu baax jërëjëf.